bëri la cay siiw bu matee ñeenti mbër mbaa fukki mbër ca lay yem Toubacouta njool la boo xamante ni eh, mu ngi def ay preuve ci làmb de ñuy seetaan li traditionnel xam nañ ko ndaysaan gis nga Libidoor a ngi noonu arbitre bi siflé na Libidoor moo ngemb lu ñuul li Toubacouta moo ngemboo ngemb lu ñuul li moom it jàkkaarloog adversaire am Libou Dor a ngi noonu ndeysaan ndeysaan waaw waaw ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Ndeysaan ñu nga noonu Ndeysaan Franc arbitre bi sifflé na Toubacouta jël nañ la fi nga yegg sori na Toubacouta Ngor Ndangaan la Ngor Ndangaan daan na Toubacouta Ngor Ndangaan daan na